i them done, Mahara, lally, woe. Tolong enggak? Ya, ilah ilah Get. Aso. Ah. bogor Ah. Ah, Ah. So ah jàkkal waa kay mu ci biir waa. Mu yow saay saay nga rek. yaa gën a yàq ñëpp. waa dugg leen rek. waaw yow da ngay tànn booy. ngeen ah suñu koñ dañuy neef rek. ci dàq sama xolu métti. Mara yey Mara yey Mara. suma jantal Mara ngi nii. wala egg si nga ci diwaan bi. fi ñuy taalee gars yi. fii leen taalee misi. ci li ci la Ronaldo. ñëpp dama dama lay tànn ba dégg la international. man loolu laa bëgg. xoolal dama comme Zidane moo bàyyi fi ma sax loolu daal laa bëgg. ko xoolal yegg si doogal lii baax na ay saa yu ma yee sama jantal maara. maara. big maara. waaye nare mu xóot na de. waaw saa yoo kay nelaw. waaye kii saa yi xaaral waa di wax ndànk rek ndànk man la. ma <laughs> ne la xóot na de. indi laa la kanam xoolal ki ma la indil zose na ci zose di toj bi man ko fii du sa diwaan yow da laa war a dégg fi ñuy dégg ñoom Messi ñoom kii di Ronaldo dóob man ko kan mu mën a ci jàttal maanaam mu taal eh? yaa la indi ñu war a taal ñu eh? dal maanaam wax ko sa soxla loo ko wax ko waaw man moom waaw man loolu rek ndax na ma ñëw nga expliqué am naa sama maaraam bu mën a taal parce que moo taal ay Cristiano Ronaldo taal si football man football laay def moom laay pratiqué joueurs la comme ay Messi Neymar te bëgg naa ñu dégg ma comme fi ngeen di déggee daal da ngay yow te ma raw leen raw samay maas parce que football rek laa moom football laa gën moo nekk sama rek football rek laay def man maay tàllaat man eh, maay tàllaat. mais dama bëgg nga tàllaat loolu Chris Messi ñëpp maa leen tàll. tàll mais dama laa tàllu de. tàll la son son yow yaa ma fi nga ñëwaat. jot na tey nga ne yow tàllu tàllu ma la. xoolal wax ji bu mu bëri. sottee. waaye xoolal ca xaar bu ma dee s'il vous plaît sottee. sottee. comme loolu. waaye tàllu ma man maay tàllaat tàllu. so man de gëlëmoo football rek laa de football rek laa bëgg ma taal. ban laa lay def ma naan taal. waaye gënal. ñu def man ban boobu moo ma arrangé sax après dina ma taal xam naa. alors ma lakk suuf ah. non, faut parler avec lui, faut parler avec lui. sonn nga ko wéree ñoom jëm di dal amuñu lu mu yenn. Eh, eh, eh, jamaale ko li ko. voilà jamaale jamaale ne teewul daal bu ñu yàlla ba tawul wala yow. ay tawul la ñu. yow may ni client boo rësëb. ay doo may ñaan client yoo xam nga fi mu jëlee ñaan ay client. client waaw toogal. maa lay wax toogal wala yaa ma toogal. ay toogal rek booy yow chez moi la. yow daa kon booy. da ngay laajte woon. yow may def nag la waaw yow daa xam fan nga may. yow booy xam nga fi mu jëlee yaa ngi bëgg ëppal de dégg nga li ma la wax. nan la ñuy indee client boobu rejeté. waaye moo sonal waaye da ngaa soof léegi. yow yaa soof da ngaa yalaat. da ngaa soof sax léegi. dama lay bëri si koñ bi jàngal maa ngay dégg fi du topp topp. sa mbaxana bu tënk sa mbaxana bu weeg. Hmm. yow xam nga lan moo la may sens. weeru koor mais bu ñu doon koor ma jaar fu bon yow. boo koy jaar ma koy fanaan. yow damay fili fanaan léegi. booy jaar foofu ma koy fanaan. yow léegi ma demi fanaan. da ngaa juum la. weeru koor bee daal moo la may sens comme damay. buy àgg may def ko. loolu def tous yow. ah kat naa. dara boo ko def da ngay def damay wax. damay teg temps ani sun ani wurala.